sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot ni leen koy fas yéene di ko amal mu di émission gox bi tey ñu si am mbégte lool di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Mbaye Samb Mbaye Samb nag buñ koy présenté dinañ ko présenté ci facette fànn yu bari nekk na benn conseiller euh, municipal ci commune bu Grand Yoff nekk itam euh, conseil économique social environnemental nekk itam vice président délégué yi nga xam ni quartier yi nga xam ñoo nekk ca diwaanu Grand Yoff nekk itam porte parole association yi nga xam ni moom mooy délégué de quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Sénégal nekk itam opérateur économique sëñ bi Samb ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission bu amee lu ñu fàttee rek nga fàttali ñu ko. waaw gannaaw bi nga waxee wax bi rafet na ñu wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. <laughs> mbokki jullit yi góor jigéen mag ndaw ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. <laughs> di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di <laughs> xalifa général du Murit jaarale ko sama sëriñ sama bunt ci kër sëñ Fallou muy seex Awa Balla ba sëriñ Fallou mhm. maa ngi ñaan ci réew mi jàmm mhm. di ko ñaanal jullit yëpp mhm. di ñaan itam réew mi nga xam ne ci lañ nekk yàlla jox ñu kilifa gu mat kilifa muy suñu njëriñ président de la république yàlla na ko yàlla téeñal yanal ko jàppale ko ba yéene jëm am ci réew mi yàlla eggale ko Euh, ñu commencé waxtaan bi rek li nga xam ni moom moo jëm ci jàngoro coronavirus bi ñu ngi koy jukkee bés bu yàlla sàkk rek mu di jàngoro bi nga xam ni mi ngi ci nim réew ba tey euh, puusul nee na du dem yéen ci commune Grand bi ngeen nekk tey naka ngeen ni euh, waajee wala xeexee ak li nga xam ni moom moo jëm ci jàngoroy coronavirus bi. waaw nañu ko waajee ak nañu ko xeexee yaakaar naa combat la boo xam ne ni Sénégalais yépp ah même ku amuloon physique sax def nga entraînement ba nga xam ne ne préparé nga ko <laughs> ah digal yi nga xam ne nee na waa santé bi joxe nañ ko mm-hmm. kilifa yu joxe ko ñu ngi mobiliser population bi mm-hmm. pour ñu di si jaar mm-hmm. ndax jàngoro la joo xam dafa dikk na faax nanguut a comme que nanguut a dem te mënuñu toog di ko xaar il ñu jéem a jaxasoo ñoom xam yoon wi ñuy jaar ñu ñu xam yoon wi ñuy defe naa buñ dajewut ci yoon yàlla mën na ko mu musal musal ñu mu dox ab doxam ñu dox suñu dox jàmm nañu ci diwaanu Grand Yoff nag lim bi am na ñi fi am corona des fois di nga dégg bu ñu joxee bilan bés bi ñu tudd Grand Yoff yéen euh, waajal gi ak matuwaay yi ngeen jël euh, ci yan fànn la. waaw ndax boo xoolee commune Grand Yoff bokk nañ commune bokk nañ ci commune yi ëpp important ci Sénégal. Mhm. ndax bu ci ëpp lit boo ne première nekk deuxième. Mhm. comme que ñun léeg-léeg nga dugg semaine ba semaine ba jeex nga dégg ñu naan benn lañ am wala ñaari cas. Mhm. yaakaar naa ne kon population Grand Yoff ñu ngi góorgóorlu. leader yi nekk fa ñoom mhm. ñu ngi góor góorlu ci li leen war. Mhm. ñu ngi dugg ci population bi. Mhm. di waxtaan ak ñoom. muy responsable politique yi. muy délégué de kart yi. wax dëgg yàlla association yi. ASC yi ñëpp ngi liggéey liggéey boo xam ne ñoon waa Grand Yoff ñun rafetlu nañ ko. ndax man guddi bëccëg. Grand Yoff laay yendu. te dama jaxasoo population bi. maa ngi ci seen biir. ànd ak ñoom liggéey bi kon yaakaar naa ne liggéey bi ñu commencé daal am nañ yaakaar ci ne bu ñëpp defee ne ñu nit kenn duñu résultat yomb na ah mënut a yomb nag ndax li am solo mooy lenn am na ñoo xam ne nii information bi duggul ci seen bopp bañ gëm ko nañ ko war a gëmee. Mhm. mais ñun ci si bopp. Mhm. ñooy transformer information bi dugal ko si bopp nit ñi. Mhm. jàppale leen ak di dugg ci kër yi. di waxtaan ak ñoom. jël masque yi di leen ko jox. jël euh, li nga xam ne moom la ñuy raxas seen loxo yi. di leen ko won di leen wax nii ngeen war a def nii ngeen war def. yaakaar naa nit ki saa soo duggee këram wax ko waxaat ko. Mhm. troisième fois boo di la nga ko jàngal dana ko xam. Mhm. porte à porte yi ngeen di faral di def wala léegi da ngeen di dem jël seen euh, oto bu am euh, bande sonore. ngeen am xale yi jël nañ oto bu am bande sonore par AIC commune quartier bu ñu dugg tey boo liggéey ñu dugg beneen. Mhm. ñun kilifa yi ñu ngi def porte sama classe gi nga xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi leen di invité ci télévision yi ci rajo yi ñu ngi wax. si doom yi ñu ngi wax. kon am naa yaakaar ci ne fii ñu toll nii. dañoo boole ñaari mbir dañu boole wax ak di jëf mm-hmm. ñu ngi jël suñu moyen di dimbale nit ñi mm-hmm. ñu ngi leen di conseiller ci xel mu dal mhm. waxtaan bu neex boo xam ne ni doo empêché nit ki doo ko sonal mhm. te li nga koy expliqué dana dugg ci bopp mhm. ak ah, est-ce que tey yomb na ak masque yi bu ñu demee bay nemmeeku yenn ci askan wi relâchement da ci am masque yi kenn sorati ko distanciation sociale bu ñuy wax euh, benn mètre ci nit ak nit euh, lu bari léegi nit ñi respecté ko ndax euh, message bi mu ngi dugg kon dara mais àdduna dara yomb ci réew mu toll ni Sénégal nga xam ne xamuñoon ay masque daawuñu ko takk. Hmm. nga xëy xëy na leen takk leen masque. am na ñoo xam ne bu tàngee mu ngi leen sonal am na ñoo xam ne bu tàngee mais tout souvent dañ leen di expliquer danañ la expliquer sax ba dugg sa biir kër ne la bu fekkee da nga nekk sa biir néeg yow dong mën nga tekki sa masque bi noppalu waaye booy génn bu dee benn mètre la sax takkal masque boo demee ba nekk ci sa oto yow dong nga xam ne kenn néewul bu dee fàtte nga tekki ko booy wàcce nga takk ko information bi ak communication bi ñuy jox nit ñi bu fekkee ni ñaa ngi koy dégg te mel na ni ñu ngi koy dégg danañ dem ba ah incha allah. Mm-hmm. li nga xam ne moom lañ bëgg. état Sénégal bëgg ko kilifa yi bëgg ko. Mm-hmm. président de la République bëgg ko yàlla mën nañu see dimbale bañ am si ndam. mais am na ñoo xam ne gëmuñu corona bi ba léegi de. waaw mais ñi ko gëmul ñooy fexe ñu gëm ko. Mm-hmm. bu ñu demee ba yegg si téeméeri nit yi ak nangam nit yu faatu ci coronavirus nga toog ne gëm. waaw léegi nag li am solo mooy lenn bu ñu xool ci lim boobu loolu lu yàlla dogal la te xam ne nag ne nit ñi naka jekk ñu loo xam ne am na ci réew mi lu war a man ñeenti weer bay dugg juróomi weer mhm. ah boo xoolee nag waa santé itam li nga xam ne dal na leen ak li wér mhm. nga xam ne ñi ngi def seen kémti laay kàttan mhm. yàlla nag moo yor dund ak faatu waaye nag li am solo mooy nit ñi moom nañ def li leen war ndax yàlla kat ba muy bind moom bind faatu bind dee bind dund feebarit yàlla moo ko bund waaye li am solo mooy ñun nañu moytu képp ku moytu bu yàlla indee day ñu xam ne yàlla moo ko indi waaye loolu doonul ci nit ñi nañ moytu daal li am solo daal mooy lenn. Mm. lii mooy tax doo feebar. xam nañ ko nañ ko moytu te loolu la ñu lislaam sant loolu la ñu lépp sant kon nag kilifa sant ñu ko nañ góor lu ba xam yoon wi ñuy jaar. Mm-hmm. aw yoon la woo xam ne nii. keeka musiba la yor waaye bi yoon jàmm ngi fi nañ moytu yoonu musiba jaar ci yoonu jàmm <laughs> alors ci loolu euh, li nga xam ne moom moo di coronavirus bi am ñoo xam ne dañ ci lompoñ ba état bi jukki ci gafaam ne day jàppale askan wi ci li nga xam ne moom moo di dund jiite nga commission ca diwaanu Grand Yoff séddale ba nan la mujjee rafet rafetlu ko te it séddale bi maa ngi yedd maa ngi expliqué waa sénégalais yi <laughs> mhm. bu ëllëgee kilifa gu toll ne président de la république jiite réew mi mhm. su amee yéene ne lii laa bëgg a defal population bi képp koo dégg na dem bindu ji mhm. maa ngi lay xamal ne dund bi mhm. à part bourse familiale yi képp ku bindu woon te jaar ci yoon jot nga sa wàll na ko war a jote li ma lay xamal nag lu war a mat cent mille tonnes de riz yu tegal nga bëgg koo séddale population Sénégal te fii amuti géej ay oto koy roñ réew mi Sénégal lu mat juróom-ñaar téeméeri junniy kilomètre wala lu ko jege. Mhm. nekk fi ay oto bokk fa yóbbu. Mhm. affaire bi mënut a gaaw mënuñ ko séddale si ñetti fan ñeenti fan. Mhm. ndokk nag bi président amee njiit yoo xam ne loo na leen ñii ñu doy ñu mat kilifa muy lu dem ne ministre de la santé. ak itam ñi nga xam ne ñoo yor transport bi di ko séddale. ak ministre de développement comme Mansour Faye bi nga xamee ne yàlla dogal na mu am xel mu toll ni ne nawet mi ngi dugg kon nañ njëkk fi gën a sore. ñu dem fu mel ni ay Kolda Singasoor Kédougou Tamba Matam gi mhm. ñu ne kat fii bu tawee ndox mi bu commencé do ki ñuy njëkkee foofa mhm. bi njëkkee foofa nag yàlla dogal nu ni am na ñoon waa naan dafa yeex dafa yeex mhm. mais oto yi ay nit a koy chargé. Mm-hmm. mais yéex moom am na ci moom. waaw mais dama lay leeral mm-hmm. oto yi ay nit a koy chargé. Mm-hmm. te bu paree day daw ay kilomètres door a egg bu dëkk. boo eggee guddi day gaare ba set ay nit a koy déchargé loolu nag il ñu may ne ñu def loolu ndax du ñu machine. buñ ko dee déchargé pare ay nit a koy séddale il faut ñu jël organisation boo xam ne nii dañuy teg fii cent kilos ceeb. teg fi dix kilos suukar. teg un paquet saabu ñaari bidon diwlin ñetti paquet macaroni. def ko def ko su fekkee mille personnes war a am il faut nga jël organisation boo xam ne da nga def loolu lépp ba pare. Mhm. nga door a convoquer population bi mhm. bu njëkkee kenn ku ne nga jox ko wàlla mu dem sarse yóbbu këram. Mhm. coow du am bu demee dana sant yàlla. dana mën a toog këram. li munta ñàkk lay génn waaye li nga xam ne ni farata la yàlla dimbale nañu ba kilifa gi ñaam jàppale nañu ba jox ko population ba ñëpp a ngi sant. ah di ñaan yàlla naa bu barkeel. est-ce que mënuñu woon joxe ndimbal gi ci beneen fànn. li nga xam ne nag moom moo di am na jumtuwaay yu bees yi nga xam ne génn nañ fa mun nañ fa dugal xaalis ngir yóbbante ko. man d' accord ma ci loolu. lu tax d' accord lu tax d' ma ci loolu. Mhm. yow mii de wax ak man tey su ma la yëkkati woon fukki junne jox la ko argent liquide. Mhm. soo waree yóbbu sa kër fukki junne ñaari junne nga yóbbu ne naa réglé ji bi problème naa réglé bi dund nag mun ta ñàkk. ndax dalay wóor ne dañ ne saako bu ci dara newul du taxaw. Mhm. dalay wóor ne ko xëy am ceeb boo lekk. am diwlin ngoo ko booleet. am saabu boo fóote am sookar soo sookaree leneen loo doxi loo xam ne nii luy farata rek war a tax nga jóg waaye ab dund sa problème waaye ku tëj sa biir kër yoroo dépense bu doy force nga génn par force <laughs> tey li wértoor mooy leen amul benn sénégalais boo xam ne nii <laughs> da nga yor fukki junni ci sa poos toog na lii dama ko jënd ceeb rek toog lii président de la république def mhm. ñekk ko xelal dañ ca rafetlu xel mu rafet maanaam dañoo ñenaan xaalis bee gënoon dañoo bëgg lu gaaw rek mais nag lu gaaw te amul njëriñ lu yeex te am njëriñ moo ñu ko gënal mhm. ni yéex na naam yegg si na Grand Yoff Grand Yoff ak lim bi nga xam ni am nañ ko ndax ñëpp jote nañ ci li ni mel loolu nag dama ci sawar mhm. ndax dama nekk délégué de quartier Grand Yoff ba pare ñu nekk soixante-quatre délégué ma nekk vice président bi am fa xam-xam lool jaxasoog délégué yi lool te loolu yendu ci ñoom fanaan ci man mhm. ma xam liggéey bi gis nañ séddalee dund bi mhm. délégué benn bu ne ma xam quota bi ñu jox ak ni nga ko doon joxee mhm. amul benn coow boo xam ne dégg nga ko ci commune Grand wax dëgg yàlla kera bi Mansour Faye ñëwee ba def journée bu njëkk bi def organisation ba départ ak léegi jusqu'à présent amul benn problème te amul kenn koo xam ne war nga jot te jotuloo ndax délégué bañ nañ ko ba dañoo am benn coordonnateur boo xam ne nii bépp boo xam ne bindoon nga ci mbay Samb mm-hmm. nga dikk liste bi Mbaye Samb yor sa tur nekku ci am na foo xam ne boo wootee bu ñu xoolee ordinateur bi dinañ ne la kat yow sa tur président Diawlo ma demal ci délégué sàngam soo fa demee da nga fa fekk sa tur mm-hmm. soo demee fekk fi sa tur jël sa ration mm-hmm. bi nga xam ne dem nañ ba pare ba nga xam ne joxe nañ nit ñi ba mu jeex peut-être da am ay nit ñoo xam ne mën nañu faatu duñ ko yëg wala seen portable mën na réer mënuñ leen a jot léegi nag dañoo sélectionné waat kii ndax man boo xoolee commission bi mu jiitoon bi ma defee séddale pare juróom-ñett remi laa am yoo xam ne ni seeni borom jotuñ leen dama retourné waat dellu ba ci préfet jox ko juróom ñetti yu préfet mi ngi defaraat benn list war a organiser waat commune Grand ñu waroon a am te amuñu bu defaraatee liste bi pare dañ koy indi maire jox ko secrétaire municipal mu téye ko bépp délégué boo xam ne ne am na benn partenaire bu bokkoon ci yow bindu te amul bu dikkee ne la bindu naa da nga naan ko defal directement maire boo demee nga dem ci secrétaire municipal ñu génn liste bi bu su tourné kere da nga am mm-hmm. képp koo xam ne bindu nga da jot sa wàll moom non rëq amul ndax li virtuur mooy leen tardement mën na am mais rëq-rëq amul mhm. tardement nit ki mën na feebar mën na tukki man na ëpp mhm. waaye nag bu retour rek bu dikkee ñu teg ko ci yoon mu dem jël alalam ci loolu mi ngi mel ni xaalis bi nga denc sa banque mhm. heure boo bindee sec bu sec bi eggee sa banque bi su xaalis amee ñu jox la kon nag li am solo mooy maa ngi wax ko population Grand Yoff képp koo xam ne bindu woon nga mu wóor la ne yaa ngi am ci bourse familiale te jotuloo demal préfecture boo demee danañ la wax na ngay def ba jot wala nga dem si délégué de quartier parce que information bi man danaa ko tasaare ci délégué des quartiers yëpp danaa fexe ñëpp am ko ba képp ku ñëw ci ñoom boo leen laajee mhm. dana la wax ni ngay jaar pour jot sa affaire mhm. yaa ngi wax ni rëkk-rëkk amul waaye yéex-yéex am na mais ndax itam am na ci ñoo xam ne euh, dañoo nañ def réclamation réclamation ñu ngi woon ci liste bi te mënuñu am déet maanaam képp koo xam ne nekk nga ci liste bi bul ne munoo am man nga am ñëpp am nañ ñëpp am nañ képp da naan jot nañ wala jotoon mais am ngi moom ñëpp am nañ ku nekk ci liste bi am nga mhm. même boo dikkee jotuloo sa bon. Mhm. boo demee def réclamation préfecture bu ñu xoolee ordinateur bi dinañ xam yow sa bon fan la nekk. Mhm. bu ñu xoolee liste bi gis sa tur pare nañ pour jox la. Mhm. parce que ceeb baa ngi fi ñu ngi koy joxe duwul na dafa jeex tàkk ñu naan ceeb daa manqué wala daa ngi wala diw. li nga xam ne moom lañ parwaaroon grave lépp disponible na. ñi nga xam ne teewoon nañ ñëpp jot nañ. ñi nga xam ne teewaguñ seen wàll nga fa mm-hmm. bis buñ teewee jox leen ñi nga xam ne jotaguñ seen tur nañ dem préfecture ñu génn liste bi buñ xoolee danañ wax seen bon fu mu nekk ñu récupéré ko jox leen mm-hmm. wax lañ nañ def ñu dem jot mm-hmm. maanaam daal jotu maa ngi daal amul Grand Yoff conseil municipal nga fële ca bu Grand Yoff yéen itam comme état def na yéen xanaa defu leen itam ankay ñun li am solo en tant que conseil municipal bi benn réunion conseil municipal mu conseil yëpp teew. Mhm. alors ñu génn benn di bis bis bi njëkkoon a génne entre cent cinquante millions ba cent quatre vingt millions. Mhm. ñu xool ne lii tuuti nañ ko multiplier yokk ko ba deux cent et quelques mhm. bi yàlla dogalee ñu def ko ñun ñëpp ñu waxtaan. ñu ne comme que état Sénégal dafay joxe te doole bi état bi am commune bi amu ko. nañ bloqué lii nga xam ne ji am nañ ko si ceeb lépp mu ñu tëj ci magasin yi. il faut ñu xaar ba état bi joxe bu état bi joxe ba mu wóor nañu waroon na ci état bi ñëpp am nañ. léegi nag ñu xool comme que délégué de quartier ak conseil municipal yëpp ci commune bi lañ nekk. Mm-hmm. kenn ku ne quartier bu ne xam nga fa ña ko mérito ña am ak ña amul. Mm-hmm. léegi su ko defee ñu sélectionné ñi nga xam ne amuñu. Mm-hmm. buñ leen sélectionné ba ñëpp toog ñu xool ñun liñ am. xam ne kat léegi par exemple exemple pas chiffre exact li léegi kat xool nañ mille personnes moo des. yoo xam ne amuñu ñun kat am nañ trois mille sacs de ceeb. kon nag léegi kenn ku ne nañ la jox un sac. Mm-hmm. bu fekkee dañ ne trois mille personnes moo des te ñun ñu am léegi six mille sacs de riz. Mm-hmm. ah léegi kon donc war nañu mën a joxe ñi amul kenn ku ñu jox la mm-hmm. deux sacs de riz. léegi ñu xool li am ci saabu. xool la ñu am ci suukar xool la ñu am ci diwlin loolu lañuy ñuy diffusé kenn ku nañu jox la su ko defee jàmm nañu ñu dem jàmm ji yàlla mhm. te dem liggéey te moytu te est-ce que jàpp nga ni itam dina yomb commune bi génne ko ci gafaab joxe ko dina yomb moo gën a yomb bu état bi ndax commune bi ñun xamante nañ mhm. tey wax dëgg yàlla ñu dëkk si commune bi kenn ku ne xam nga ki li nga xam ne ni moo war ak li jaadu mhm. te ñun ñëpp ay jullit lañ te ñun ñëpp xam nañu li ñu te wax dëgg yàlla maire bi nga xam ne moo nekk si commune bi d'accord bokkuñu parti mhm. waaye fii ñoo bokk gis-gis ñoo bokk yéene mhm. ndax li ñu am yéene mooy dimbale population Grand Yoff vision bi président de la république am mhm. moom lañ am ba nga xam ne ni buñ jógee fii daal xam ma kenn waaye population bi moom danañ xam ne am na njiit yu man njiit yu leen jiiti te bëgg leen dimbale bëgg ànd ak ñoom am na ñuy wax ni ñu bëri dañu concentré wu ci dund bi bàyyi xeexu coronavirus bi lan ngay tontu si ñoom waa maanaam euh, xam nga li am solo mooy boo déggee ñu naan coow la ca teen ba gaa ñi amul baag la mm-hmm. am na ñoo xam ne information bi ñuy joxe joxe wuñ ko ngir defar mm-hmm. dañ koo joxe ngir suñuy wujj lañ wala ñu bëgg li ñu yor wala ñu jéem a yàq li ñuy liggéey mm-hmm. waaye li am solo mooy man am naa yaakaar ci ne feebar bi fi ne ko gëmuloo ne léegi gëm nga ko ndax état Sénégal bu demee ba génne lu man soixante nangam milliards génne ko arrêté liggéey yu bëri arrêté transport bi jóg len lu ne mu ñàkk ci sant bi mhm. nit ñi gis ñii di wopp ñu leen dafa ñii di feebar mhm. chaque jour nga dégg information bi ñu joxe képp koo xam ne ni yaa ngi naan feebar bi amul da nga bëgg yàq waaye xam nga ne feebar bi am na mhm. kon nag ñun li nga xam ne ne moo am solo mooy ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla jiital fab réew mi teg ko ci suñuy loxo nañu góorgóorlu ba ngeen baal ma ñi ñu jiital du ñuy jéppi li ñu liggéey ñu seet suñu digg ak yàlla incha allah bu ñu ko defee yàlla danañu dimbale. ndax yàlla kat mi ngi àtte ci xolu njiit li ñu am njiit li ñu am dañuy xool décision bi mu am ak itam dëggu gi mu am ak yéen ji am ci réew mi nga xool ni mu jógee pour jàppale waa réew mi. bu ko waa réew mi jàppale rek yàlla defal ñu ndam. si ku wax ni Grand Yoff di nga romb léegi est-ce que yéen bi waxoon na fa Grand Yoff ku fay dugg na nga sol masque. boo solul masque daan dinañ ko teg sa kaw ndax li ni mel ñu ci moy ba léegi non xam nga maire bi mënuñoo tegee daan lu mooy liñ man mooy joxe information communication bu leer mhm. jël nangam mi junni masque may ko population bi defar ngeen ci def nañ ci lu dul jeex may ko population bi boole koo di leen conseil ASC ñu jël leen ASC benn bu leen jox ko lu nangami masque mhm. jox leen leen dugg leen mhm. ba pare teg benn coupe ne ASC bu ci gagné sa commune sa quartier gi dinañ ñëw ci projet boobu waaw dégg nga def ko kon ñun loolu la ñu mën autorité di police ak gendarme yi am de loi mhm. ñoom it ñu ngi contrôler population bi bu baax kuñ dajee takkaloo masque ñun la takkal bu fekkee yoon def na ñu teg lay daan ñu teg lay daan mhm. mais ñun loolu la ñu mën mhm. li ci des nag nit ki nga xam ne ne moo bëgg wér ki yaram ak santam mooy nag góor góorgóorlu ci ndax kat feebar bi amul ministre amul député amul président amul ki bàyyiwul kenn kon nag dafa defe ne te nag yàlla kat dafa bind tubaab bi am lu mu tubaab bi mu la bindalee oto daf la bindal secours tey fu sa pono pa yàqoo nga jël secours mais yàlla ñun daf ñu bindal suñu bakkan yi mais bind lu ñu secours ku sa roo dagg xaw ma genn waaye yow dootu ñëwaat Sénégal kon nag lépp loo yaakaar ne moo lay xañ roo gi mooy dagg roo gi mm-hmm. da nga ko moytu kon nag population Sénégal ma dolliwaat ci information bi ak communication bi ba ku dégg sama kàddu gi. Mhm. boo delloo nga xam ne yàlla benn bakkan la la jox. Mhm. te bu ko jëlee mënoo ko amaat fii xëy na dundug ëllëg waaye dundug àdduna jeexal nga ci te kenn bëggut a jeexal léegi kon nag nañ leen maintenir. communication bi ñu leen di jox. di déglu lu ñu waa santé jox. ak autorité yi pour ñu takk masque tey raxas suñuy loxo. tey dox farata tey moytu dajaloo bi. ok ci noonu si ngeen waa Grand Yoff jël initiative euh, ngeen tuddee ko nawetaan coronavirus. Mhm. alors loolu naka la juddoo. waaw man ni ma ko dégg de ku mel ni professeur Djibi Diakhaté. Mhm. moo jël initiative bi. invité na ma këram ma dem mu invité ma fa maag DG Cheikh Bakhoum. Mhm. ñu dem waxtaan ak moom. ñu rafetlu ko lool yëkkati suñu ndimbal jox ko hmm. ah alors léegi ci ëllëg suñu def organisation benn cérémonie ci maire bi bi mu dikkee invité maire invité ñu ñun ñëpp ñu toog hmm. léegi bi mu dikkee ñu wax monsieur le maire population grand population la hmm. ci njabootam lañ ndax moom la fi yàlla teg bien vrai que bokk ñu parti waaye nag fii ne ñoo bokk benn xalaat benn idée ngeen ànd ci ñu ànd ci liggéey bi mu dikkee mooy tam mu daal di soutenir projet rafet rafetlu ko fab ay ndimbalam lam man def ko moom digganteem ak ASC la digganteem ak Jibi Jaxate mhm. ñu itam lañ man ñu def ko suñ digg ak ASC def ko seen digg ak Jibi Jibi Jaxate mhm. ba pare nag nekk seen biir di leen jàppale ba mhm. barki man ay ASC bu jóg boo déparé ñi yor oto yi tourné dañuy jaar sama kër. ñu sensibiliser quartier bi waxtaan ak ñoom ma jël parole wax keneen def ko keneen def ko. ñu ànd ci liggéey bi. pour le moment daal li ma gisagul nga xam ne maa ngi koy xool. liggéey bi ñuy liggéey Grand Yoff. xooluñ ci parti dañu xool pour dimbali population Grand Yoff. xëy na. maire bi bokkuma ak moom parti bokkuñu bëgg-bëgg ndax li mu yor tey suma sañoon moom wàcc dugg ci samay loxo moom laa bëgg comme moom dinañ ci ñëw waaye nag bu ñu ci liggéey nañ wax dëgg ndax nit ki kat ak loo bëgg-bëgg ànd la ngor ak tegente ànd ak yar mm-hmm. nit ki su defee lu rafet ne ko defal def lu rafet su defee lu ñaaw nga ne ko defu nga ko mhm. en liggéey bi daal ni ñu commencé mhm. xale bu ma maire xale bu ma conseil municipal ni délégué ni état mhm. puisque dama nekk si biir di liggéey ma dëgg rek laa gëm li ma gëm mooy li nekk sama biir xol du ma woyal kenn ay maamam te gisuma ko ndax namuma dara ci nit ndax liberté fi ñuy dem yàlla moo ñu yóbbu waaye liggéey bi la jàllagul macha allah rafet na ci ci loolu gëm nga ni di ci am ay résultats probants yu am solo kay buñ si gëmutoon ay résultats ñu changé. maanaam jiital li ngeen si jiital ASC yi quoi. non ASC yi ay xale lañ. Mhm. xale lañ yoo xam ne am nañ jot dañoo waroon nekk fii nekk si terrain yi football. Mhm. léegi au lieu ñu dem di football mënatuñ ko jox leen masque yu jot jox leen matériel yu doy. Mhm. yebal leen ci xale yi yebal leen ci maire yi ASC suñu doom lañ kenn ku ne bàyyi nga sa kër sa yaay sa papa. xam na ne boobu dem bàyyi sa kër ku jabat wala koo xam ne dafa amee tension wala ku beneen feebar daal bu ko corona bi dal day faatu yàlla tere kon nag ñoom nit ñu bëgg te kenn ku ne koo xale boo si laaj li mu wax yàlla na ma yàlla jox wërsëgu mu yóbboo sama yaay màkk yu mu yóbboo sama baay màkk nu ma ko jëndale oto ak nu ma ko jëndale kër kon xam nañ ne lii ñooy rey seen papa yi est duñ ko moytu ASC yaa ngi liggéey liggéey bu rafet ñu ngi leen accompagner accompagnement bu rafet di leen conseiller di leen dimbale di leen xelal. Mhm. njeexanteel bi lan la coupe ngeen di joxe wala financement ngir ku ci gën a. Euh, am sensibilisation mhm. ñun ni ñuy doxee mooy. Mhm. ASC yi xam nga coupe ñoom bu ñuy def seen tournoi nawetaan coupe lañ leen tegal. il faut ñu tegal leen ko moom ngeen teg waaw mais à part loolu itam bu duñ jàpp ci coupe bi ndax ñun. ay responsable la ñoo xam ne fu ñu toll kenn ku nekk gox bi nga dëkk. ASC nga nekk yaa leen di jàppale. soo sañoon di jàppale xale ñu am liggéey nga am say moyen di leen dimbale kon nag ñun la ñu war ñun en tant que ay responsable ba pare ñuy politique xale yi li ñu war mooy di leen jàppale ci seen bépp bëgg-bëgg lépp lu leen jox liggéey ñu di ko def lépp lu leen di jàppale ci li nga xam ne moom mooy tax mooy yiñ mën a bëgg a exploiter ñu def ko ñu leen ci jàppale di leen conseiller di leen dimbale ci seen alal mhm. ah li mooy li ñu war te yaakaar naa ci l ñëpp nekk ok ok 88 la mbokk yi 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 yéen a ngi ci émission gox bi alors ku wax Grand Yoff euh, yaa ngi ko gis nii asamaan si xiin na ba am na taw sax lu jot a waat waaye ne tey li nga xam ne nag moom moo di taw mi problème assainissement la ñuy wax si Grand Yoff. alhamdulilah rabbil alamin bala ngaa yegg waa Kone. fan nga fan ngeen tollu tey. ci li nga xam ne nag parce que bu naan taw la nga xam ne nag moom moo di ndox bi da doon faral di dugg di def ay yàqu-yàqu ndax tey jël ngeen seen matuwaay yëpp ngir euh, préparer yu mel ay conseil ngeen ndax waxtaan ngeen ci. xam nga soo gisee nga commencé wax bi rek mu gàddu wadd ne alhamdulilah rabil aalamiina. Mhm. dama xam Grand Yoff démb. Mhm. xam ko tey. te am lu ma yaakaar ci moom suba. ma mhm. xool bi président de la république. fa mu fekkoon Grand Yoff ak ni ñu ko defar ak bu masaa taw. toog naa ba deux heures de matin président de la République jóge pale ñëw dikk Grand ci taw bu bëri ndox mu bëri bokk naa ci ñu ko accueillir ñu xool liggéey ba mu jot liggéey nga xool ndox mi lu taw bi bëri bëri dans vingt cinq minutes bu taw bi arrêté ndox mépp dem la ko waral mooy pësteef ak yéene ndax li am solo mooy leen dañu maa bëgg ñun africains yi ñoo xam ne ay africains lañ mais dañu am xalaat am xel war a développé réew mi ba Sénégal war a mel ni Corée war a mel ni Chine war a mel ni yeneen réew yi. Mhm. donc kon grand yow. est-ce que tar réew yi itam. waaw xëy na avant muy dugg ci suñu loxo tardement waaye bi ñu duggee ci suñu loxo léegi maa amatu fi. Mhm. ndax li am solo mooy lenn li nga xam ne ne président de la liggéey na ko fi ba ñu amee indépendance ak léegi amul benn président. li fi jëtti président yi jaar liñ liggéey kon mhm. seen si sa huit ans yi ñun li ñu fi liggéey moo ko mais jafe-jafe yi mi ngi grand ba tey waaw moom moo àdduna ànd mhm. mais li am solo mooy lu bu dikk rek boo dégg ñu jàmbat côté bu subaa nga dégg booba jàll beneen mhm. nañ ñaan yàlla président de la république am poste bu toll ni jafe-jafe bu ñu ko jàmbatee mu faj ko suñ ko fajee boo liggéey ñu jàmbat beneen ñu faj bu yàggee jafe-jafe dootu am mais taw bi buy ñëw grand yow fële nga xam ni nag moom moo di jëm si station ba oto dootul a munati jàll ndax matuwaay yooyu nag jël nañ ko yéen conseil laata tey li nga xam ne moo di nawet bi ndax jël ngeen commencé ngeen li nga xam ne moo di curage dafa am ay caniveau yu fi nekk ay règle yu fi nekk mhm. Grand Yoff bitse municipal ñu am bitse boo xam ne dafa am lu ñu ca parawaar pour caniveau yi mhm. pour tiiree salt bi si nekk yëpp ñun la ñu war mooy leena wateel nañ maire bi si ba mot sëkk maire nee na commencé na ko ndax yéen gis ngeen ay résultat waaw en tout cas li wér tóor mooy li ñuy gisagun mu romb xam nga tawagul mais mm-hmm. li gis a gisagun mu romb ñu ngi koy liggéey ñu ngi ubbi kenn wooyi ñu ngi netawaay di génne salt bi oto yaa ngi koy tibb mm-hmm. pour ñu xam nag matala na wala matalewut il faut ma taw suba taw ngoon ba ñu xam mhm. mais ñun moyens yi ñu war a jox maire jox nañ ko ko mhm. accompagnement bi ki war a ñu ngi ko ci accompagner mhm. conseil bi ñu ko war a jox mi ngi koy jox gis nañ emploi yaa ngi ci terrain bi di liggéey anaa nag kani wooyu daj na wala dajut man na wala matut il faut mu taw tawaat mhm. bu tawee tawaat ñu xool fi bu amul ndox ñu xam ne fee senn mhm. bu amee fenn foo xam ne ba léegi am na benn blocage ñu dem dindi blocage bi mhm. ndax àdduna ak loolu ànd tout simplement rek da ngay jort ne lii mooy defar nga commencé saa soo demee am loo rectifié kër gi nga dëkk sax da nga koy tabax ba mu egg mais chaque jour que Dieu boo xëyee ne ah bi que war naa ko peinture war naa changé bi kon àdduna ak loolu ànd mais li am solo daal mooy lenn ñun conseil municipal yi ñi nga xam ne dañoo dëkk si commune bi suñuy kër na fi suñuy jabar ak suñuy doom nekk fi duñu nangu kenn ku foye conseil bi wala alali bis bi alali conseil bi mhm. alali commune bi kon donc léegi maire bi mu àndee ñoon même wax dëgg yàlla luñ ko sotti neen wax ci moom lu rafetit man du ma masa nangoo teg sama bët ci alalu commune bi mhm. ñu ci def na ko su noonu kon su ma ci gisee lu rafet dama koy wax mhm. en tout cas liggéey bi ñu koy wax jàpp naa ne mi ngi koy liggéey kon nag sa moroomu bu ngeen bokkee seqab liggéey ngeen waxante ne lii laa bëgg mu ne d'accord naa def lii nga jox ko moyen ne ko defal mhm. bala nga ko mën a corriger da ngay xaar ba date bi jeex mhm. nga xool tey suñ ba année bi jeex wala mu taw tawaat ma xool liñ dégagé ci budget bi te liñ ko santoon def ko mhm. bu boobaa balaa kenn dal ci kaw maa dal ci kaw tey jafe-jafe bi gën a jàmp tey biir Grand Yoff lan la coronavirus bi ah, à part coronavirus bi coronavirus bi <laughs> yéen a ngi ci ñu ngi ci kawam fi ne li am solo mooy leen Sénégal ba mu daj. Mm. ñaari jàngoro dong fi nekk. mooy te ñaari jàngoro yi macha allah am nañ médecin boo xam ne nii benn bi mu ngi ci def li ci man benn bi ñu ngi ñaan ki ko yor mm. ndax jàngoro ji yàlla moo ko yor moo ko fi indi yàlla nañu ko fi yàlla jëleel. Mm. ñun jullit yëpp loolu la ñuy ñaan président yi li mu yéene day jéem waaye yàlla mooy soto économie bi nga xam ne nii nag. wax dëgg yàlla ñooy mën a yembal doomu aadama yi pour ñu mën a génn wuti loo xam ne mën nañ coo yaxantal ba réew mi du daanu mhm. loolu bépp moyen bépp facilité defal nañ ko population bi kon nag li am solo mooy nañ ñaanal président de la république mhm. moo guvernement yàlla defal ko ndam bu bunt bii mu nekk ak fii mu teg tànkam vision bi am mhm. yàlla suturaal ko ba bët bi nga xam ne moom la suñu borom yor di ko xoolee yàlla na ko wekk président de la république ba Macky Sall gisee noonu def ci liggéey bu rafet boo xam ne Afrique monde bi ñëpp koy sëlee ndax ñun de commencé nañ ko sëlee ndax liggéey bi rafet na mhm. yaru na tey na teg na ko ci yoon te itam wax dëgg yàlla ñim jiital ñu ngi góorgóorlu mhm. ñu ne dafa lajj ci ni nga xam ne moom la yoree gestion coronavirus bu ma nettaleen ñu ne dafa lajj ñu ne dafa lajj am nañ bëgg rek te mënuñ ko am ñun loolu du ñoruñu xam nga lu ñu ñor wax ma résultat li ñuy liggéey su fekkee yow da nga ci constaté loo xam ne rëq-rëq ah gisee rëq wax ma ko suñ ko mënee corrigé la ñu corrigé ñun li ñu gis mooy mhm. rëq-rëq bu am balaa egg si teew ñun ñu jëm ko faj ndax bi ma laajee ñu ñëw séddale ñi amagut wax naa la wax la it ñi nga xam ne ñoom ñoo gisagut jotagut seen bon nañuy def mm-hmm. ak wax la it ñi nga xam ne yàlla dogal na faatu nañ xamuñu leen mm-hmm. ñi nga xam ne numéro téléphone yi ñu joxoon ci liste bi di yoratuñ ko kon donc léegi kenn ku ne li may conseil population bi kenn ku ne na xool diggam ak yàlla su fekkee bindu woon na mhm. te jotul na dem préfecture su demee def recommandation mhm. wala mu dem ci délégué de quartier ba mu bindu woon mhm. su demee génne kayitam bu def réclamation délégué lu mu gàtt-gàtt xel-xel xam xam-xam na fi muy jaar ne ko jaaral nii boo jaaree nga jot bu ñëwaatee ci dund bi séddale bi naam phase bu njëkk bi mel na ni ay communes yu ci des dañ leen di compter ci cinq cent ak nangam am na ñu ci bari ñoo xam ne jot nañ mais un million ménage presque ak lu topp ñoom ñoo ci am ndax tey yéen a ngi prévoir ñeneen ñi nga xam ni amuñu woon ci ndimbal gi ndax yéen a ngi xalaat ñooñu. ñu ngi leen di xalaat ndax boo xoolee. tey ji par exemple dama lay wax délégué boo gis exactement ba jox la benn chiffre boo xam ne nekkul ba siis. Mhm. boo fekkee ne ñi bindu woon ceeb dañu nekk deux cent personnes. nga xam ne bokk nañ ci bourse familiale xam ne ñu am nañ amaat nga quota minimum cent personnes wala deux cent personnes yoo xam ne da leen a bindaat te yàlla dogal na liste yooyu bi mu demee amu ci benn nit bu ñu récité amu ci kenn ku ñu réformé ñëpp am na liste ba demewoon la ñëpp am kon ñun en tant que délégué. Mhm. information bi ñu mën a joxee nga xam ne ci la ñu sukkandiku wane na bee dëgg la. Mhm. ndax su fekkee ñun ñi nga xam ne dañoo bind simple citoyen moo bind nga xam ne demagul ci état bi. Mhm. nga bind téeméeri nit. liste bi delloo sa ñu jox la téeméeri nit na la téeméeri yi nga bindoon yëpp ñuy jox leen. kon na nga jàpp ne ñaar téeméeri nit yi nga bindoon lépp la. kon nag li am solo mooy lenn dama bëggul la dégg. ñu naan état bi dañuy wax joxewuñ ku bind woon am nga. képp koo xam ne jàkkaarloo yow nee naa aw ma ci ceeb bi nekkoon ndax bind nga. ku binduwul nag maanaam mi ngi mel ni jàngoro bi naan jàngoro bi am na nga naan amut boo léegi bu la dalee nga xam ne yaa moytuwut dégg nga bañ naa dañuy joxe ceeb di joxe dund mboolem boroom kër bu bindu. Mhm. macha allah yàlla jox na la. Mhm. donc yéen a ngi waat njiitu réew mi ngir mu yokkaat. ñun fu ñu toll. Mhm. njiitu réew mi li nga xam ne nii lañ koy jàppe moom général la boo xam ne ñoon ay soldaar lañ. tout simplement dañu koy conseillé ne ko li nga xam ne mooy suñu intention ak suñu bëgg-bëgg. Mhm. mooy bëgg-bëgg population bi. tax président boo xoolee ci loolu nekk yéen la gudd xoolal tey vacances yi jot na nee na amul benn ministre bu jël vacances na ñëpp nekk ci terrain bi liggéey. ah ministre kat bu ñu jëloon vacances ñu laaj leen. la tax. ah période bii fan ngay jëm ñëpp a ngi tëj seen bunt. waaw waaw léegi. Euh, mais li am solo mooy leen mhm. jàngoro ji ñëw na. Mhm. ñëpp ñi am donc mbay tànk ñu fal leen. ñu nekk njiit. xoolatuñ droit bi ñu am. Mhm. xoolatuñ samedi dimanche. Mhm. liggéey leen war mais képp kuy liggéey am nga droit boo liggéey ba samedi nga tëdd sa kër nopp lu mais defuñu ko tey ji yaa ngi ni dimanche la. Mhm. waroon naatu sama kër. da nga ma déplacé na ma jógal nga bàyyi li nga def kaay dikk ñu wax ci problème réew mi. da nga fi taxawal tamit askan wi muy ngay itam. moo tax ma ñëw. kon donc léegi man ni ma jógee. taxaw ne soccat bu taxaw. ne ko président defe ne la ko population bi nga xam ne ànd nañu président def ko. ñu ngi boole jël seen alal di ko jox nit ñi di leen conseiller di leen jàppale. di leen wan yoon mi ñuy jaar. yoon moo xam ne am na taxas wala ay dégg ñu ngi koy fàkk. dégg nga kon nag yaakaar naa ne combat bi ñuy woote. dañu see jiite ba pare dañ see jiitu ba pare nekk ci. di ko wax nit ñi nag. te li am solo mooy lenn. yow mii Dramé wóor na ma ne yaa ma ëpp jàmm. parce que boo jógee ah, fii mën nga dem toog man vingt quatre sur vingt maa ngi liggéey guddi bëccëg aw ma heure. fenn fu ne maa ngi liggéey maa ngi ci population bi di wax ak ñoom ak it di wane nag. Mhm. liggéey bu rafet bi nga xam ne président de la ñu ne da ngeen lajj ñu ngeen lajj non bul waxee man da ngeen lajj moo boobu puisque ne caq bi a takk kooku nag mënaguñ koo libéré. Mhm. nañ ko ne ci beneen waxtaan. Mhm. am na ñuy yi ñoom ñoo détourné affaire euh, séddale euh, ndimbal gi. non loolu mënut a nekk ndax li am solo mooy lenn délégué de quartier benn bu ne père de famille nga yor nga ay soxna ak i doom mhm. quartier ba nga nekk dañ la wóolu jiital la xale yi rus la mag ñi rus la kenn ku ne yaay duggal sa bopp ci quartier bi bind nit ñi délégué de quartier amul pouvoir pour mën a dettu na ceeb ku ku ko waxit dañoo wax seen wax ju ñaaw rek mhm. waaye délégué liñ daj kenn daju ko ci yenn lañu nalawuñ et puis bi nga xamee ne affaire bi commencé na yàllaa leen suturaal rek ndax seen kër yi day fees dell mënuñoo génn nit ñi hmm. te ñu ngi taxaw di seere nit ñi benn par benn benn par benn di leen bind benn par benn hmm. buñ pare ñu leen accompagner di leen libérer seen i bon hmm. pare di leen libérer seen ceeb seen dund ba ñëpp dem commune Grand Yoff déggoo fi benn délégué de quartier ba am problème déggoo fi benn werante kon nag alhamdulilahi rabbil alamina ah ñun dañu ngi sant yàlla di ñaanal président de la république di ñaanal état bi di ñaanal réew mi nag jàmm ji yàlla sotti ko te jëlee ñu fi mbas mi mhm. taw bii nga xam ne mi ngi wàcc yàlla na yóbbu waa mi yóbbaale mbas mi nekk ci réew mi mhm. andi na jàmmi kese kon daal délégué yi def nañ seen rôle ba mat sëkk loolu man mën naa ko témoin mhm. ndax li am solo mooy lenn ah njiit lu ne am nga responsabilité li nga jiite man damay xale ci délégué yi dama ne leen seen ndaw laa de leen ma yónni leen naa moo tax ma bokk ci ñun jiital li am solo mooy li ma gis ñuy liggéey liggéey bi rafetlu naa rafet rafetloo gii nag fu ma war a egg danaa ko fa wax te liñ liggéey wax dëgg yàlla nañ waxal yàlla garaaya fa mooy dégg mhm. bu la neexee nga ab kii ñu woote mhm. délégué yi moom ma gis fii gisuma ci kenn ku def loo xam ne war nañ la man mën a sikk wala ñu xeeb la ci mhm. à part délégué yéen tey seen liggéey euh, lu mu ndax tey di nga xam ni nag moom moo jëm tey am na fenn foo xam ne dañ leen ngaaññi puisque nit bu mu bëggee ñëw bindu yéen a ngi koy jox benn dossier bi nga xam ni moom lay dem bindu ndax loolu yéen koy saytu bu baax dama jaaxle ndax nit ki nga taxawoon. Mhm. dafa bëri liggéey da nga ne yéen tey seen liggéey ban liggéey. Ah, ci liggéeyu délégué bi wala conseil. délégué bi nga doon tey këyit bi nga xam ni comme x mun na ñëw ci biir dëkk bi ne foofu na dëkk ngeen jox ko yéen des fois ñu tuumal ne leen da ngeen di politique moo tax ngeen yokk li nga xam ne rek moom moo jëm ci papier yi nga xam ne moo di certificat domicile yi yi ni mel naka ngeen koy joxe exactement. délégué de quartier bi nga xam ne dafa toog ci quartier bi. Mhm. bu xale réeree ko ko. Mhm. di bu waajee dem commune mu yóbbu ko rajo communiqué bu waree yóbbu police mu yóbbu ko police mhm. bu nit ki amee problème indi ko convocation bu dee guddi mu dem yóbbu ko mhm. bu ñaari nit xuloo mu woo leen pour jubale leen te kenn fayu ko dara léegi ba déglu ma benn papier bi nga xam ne moom la ñuy jox délégué yi mhm. yow boo dikkee en tant que délégué de nga benn bëgg benn certificat domicile benn cinq cent franc bi nga koy jox te boo ko yónnee mu demal la sa yónnent ko te délégué boo dikk soo an moon la bàyyi wala man la mag ndax délégué en général nit ñi liggéey ba retraité nga xam ne dimbali nit ñi jàmm yàlla rek ñoo koy doon hmm. kon maa ngi lay xamal ne te délégué màggat gu dikk wala ko manqué dépense du kii kat délégué foog nañ délégué am nañ dikk wax la soxlaam téeméer ba nga jëloon ci dramé dikk na nga teg ci téeméer jox ko nit kon dama bëgg yéen leen délégué li ñu am hmm. mais yéen dañ ne da ngeen di politique rek yéen délégué ya ah. àdduna ku politique amu fii hmm. diine l'islam sax ci politique la taxawoo moo tax ñu bëgg mu yokk ndax bu commencé ci benn bañ naan dem nañ ci un milliard nangam politique la. Mhm. kon àdduna ko fi bëgg a nekk da nga politique nañ ko rafetal. Mhm. alors ñu ñu dellu si si commune Grand Yoff yow da nga ne da am ambition jiite commune bu Grand Yoff tey lan mooy si say projet xam nga wax ni bëgg naa mairie euh, bu Grand Yoff rek nga xam ne foofu mooy fief Khalifa Sall euh, neexul déjati de. très bien maa ngi door a parce que dama bëgg nga xool ma dafa am loo xam ne ni mooy doxalam réew mooy doxalum réew. Hmm. te nag dama nekk opérateur économique. Hmm. bul fàtte ne part bi bi muy door a taxaw. première élection bul fàtte ne maa nekkoon tête de liste professionnelle am amin soo nekk maire. yaa jàkkaarloo Khalifa Sall. jàkkaarloo Khalifa Sall def ci sama kéemti laay kàtt. mu gagné la waaw mu gagné ma ndax boobu damay door a jóg. xamaguma politique bu baax ma dem def ca la ma man jóg nag am yéene te mu wóor ma ne am naa reconnaissance boo xam ne mën na maa développer grand ci lu hmm. ndax li tax ma am ko am ci yàqin. le treize avril quatre vingt quatre dama wàcc Amérique ak cent quatre vingt dollars. yooyu ma ko multiplier ba mu nekk chiffre affaire un milliard et lu ma am ci àdduna fa la jaare ma defee ne ku am cent quatre vingt dollars di ko multiplier ba mu nekk un milliard et quelque. bu ñu la joxee deux milliards tey war nga koo multiplier ba def ko quarante kon grand pour ah, sama reconnaissance ak sama expérience ak sama partenaire. Hmm. dégg nga te nag dama bëgg ngeen xam ne réew mi du ay des diplôme français ko yor ndax bi nit ñu jógee jàngi français dama dem jàngi alxuraan ba ne ar xam ci lu may développé di ci liggéey bépp intellectuel bu ma àndal aéroport bu mu wàcc ma doon sa giri te man kenn du ma sa doon sama giri ndax am naa plus de vingt cinq ans yoo xam ne nii aéroport bu ma wàcc tey bu suba ma wàcc beneen am naa expérience bu ma développé Grand Yoff te ndaka jekk ma di ko laaj dafa tolloon nag maire Grand Yoff dama koy laaj ci yar ak teggin ak ngor mhm. ndax dama nekk si parti di dox ci discipline de parti bis boo xamee ne dem nañ ba war a taxawal ñu war a wut candidat mhm. danaa yëkkati sama loxo dem bëgg naa su ma parti bi tànnee coalition bi tànn moom daal di dëggal sama mbër mhm. li mu nga xam ne doon naa ko espoir ma woon ko nit ñi mhm. su fekkee ne parti bi wedd nañ ma ku ñu jëleen ma ànd ak moom ndax man defar ma taxaw amoo ci benn xaar ma yàlla non non ndax man wutuma alal ci parti bi wutuma alal ci maire bi macha allah maa ngi sant suñu borom kon nag li am solo mooy liggéey réew mi rek laa bëgg su ma la déggee dafa mel ni maire bi dafa lajjee kon non ma nekk ñëwuma fi pour lijjanti maire bu la jeg ba la jot mhm. en tout cas daal caq bi maire bi yor laa bëgg a takk bilan am tey noo ko gisee kooku na réglé bilan am li am solo bu ñu demee ba nekk si problème campagne danaa wax nit rafet na wala rafet fi toll sama nattangoo wala sama nawle la dama koy conseil li ma ñaan yàlla su ma sañoon mu réussir bilan bi rafet mhm. du tee ma bëgg a nangu maire bi mhm. parce ah, que rafetee kay kan jërul jël ndax leen am na boo gisee yàlla sant ñuy takk benn jabar ñaar ñett ñeent lu ko waral kii bu liggéeyee ñaari fan nopp lu kee liggéey ñaari fan moom bu fekkee def na lim man man am naa loo xam ne mi ngi ci sama bopp te nekkul ci bopp maire yi mhm. ci maire bi su ma jëlee defar su am liggéeyee su keneen di kee defar mhm. kon nag moom comme ko ñam nañ ko nañu ma ñam mayit ma set ok te am nga euh, mën-mën bi nga ko war a yóbbee euh, xam nga tey yow su ma la rombee ci mbedd mi sax nga xam ne waxuma la dara waaye dama ne la tey su fekkoon ne diplôme mu alxuraan la ñuy yore réew mi damay laaj réew mi mhm. dama leen a xamal ne soo gisee ma tànn sama njiit di président de la République yar bi ak teggin yi la ak diplôme yi yor moo tax ma ànd ak moom mais su ma yoroon diplôme yi yor damay laaj réew bu ma yorul diplôme yi nag damay ànd ak koo xam ne wóor na mu ne nit ku jub la ku tey la ku baax la ku nangoo liggéey ma xool fi mu jëmale réew mi gis nga fi Sénégal fi président de la République jëmale réew mi tey suñ ma joxoon Grand Yoff fa laa jëmale Grand Yoff ci yoon bu baax bi ah seetal ba xamee itam man du ma jaar ci yoonu bon kenn xamee mu ma ci nitu diine laa di doomu soxna jàng nag li nga xam ne moom la ma diina sant xam ne may doxale nag kon lépp lu ma yor rek ci siraatal mustaqim laa koy teg ndax laajuma maire bi pour amalal ndax macha allah bu fekkee ne lépp lu yàlla jox doomu aadama jox na ma ko kon fu mu war a nekk sant yàlla laa war a def ak dimbale population bi dimbale doomu adama yi ma la doomu aadama yi lépp lu yàlla bind man dama ñaan yàlla saa su ma gisee rek gis ndimbal lu jóge ci man jëm ci moom te ci sama borom grave neex na defar si sa gis-gis kon lañ ciy def la ñu man xam nga defar yàlla rek ko man waaye amal ambition defar boo amee bëgg-bëgg defar rek yàlla dimbali la nga defar ba foo jaar ñu ne rafet na. Mhm. gisuma président de la République ñu bëgg lu rafet ñëpp xam nañ fi mu jaaragul lépp rafet. Mhm. laata loolu yow conseiller bi nga doon tey est-ce que mën nañ euh, laal lenn loo xam ne ñu ne lii Mbaye Samb moom moo ko fi indi tey ci doon grave bu dul nekkul politique du dara. xam nga man lan moo ma tax a dugg ci politique. Mhm. dama nekk nitu social. xam nga bi ñi nga xamante ne ñu ngi dem suñ première élection mooy door a dugg ci politique ñu tànn ma def ma tête de liste xam nañ ne amal naa njëriñ population bi man ñëwuma pour sama bopp bu doon sama bopp damay toog fere lekk li ma yor damay nit social

waaye ma jaar démb ba si fii sant yàlla la li ma yàlla takkal am na ñeneen ñu ko bëgg kon nag man fu ma toll damay delloo suñu borom njukkal fas yéene nag doomu aadama yi maa ngi ñaan sama borom mhm. bépp loo xam ne da nga am xol di noy yàlla bind la mhm. boo gisee ci man rek am ci man cofee looloo ma tax a jóg mais di leneen Grand Yoff bëri na ay leader lool lim nga ko sànq wax nga euh, Cheikh baaxum Bakhoum ak ñeneen ak ñeneen tey yéen naka ngeen di xoolantee biir Grand Yoff wala liggéey bi yéen a ko bokk liggéey bari na leader mais su fekkee danga nga dem ci APR. Mhm. man maay leader bi nga xam ne seul aw ma tànnaas képp koo xam ne APR nga nekk ci di liggéeyal président de la République ci traité wàllu Sénégal fenn fu ne dégg nañ ma fa ku am sën mu ne soo ma wooyee ma ñëw ku am looy liggéeyal président boo ma wooyee ma ñëw ku am looy liggéey réew mi boo ma wooyee ma ñëw su ma ñëwee dinaa ñëw ñëwaale sama alal foo man jàppale kon donc man léegi tànnaas yi intéressé ma à partir boo si nekkee dana am ñoo gën a jubóot mhm. bu fekkee commune wax dëgg yàlla Cheikh Bakhoum laa gën a jege ndax sama doom la bàyyam te sama xarit ma ànd ak moom di liggéey ak Moussa Sané député bi ñun ñett ñi moom wax dëgg yàlla juboo naa ak ñoom ci liggéey mhm. ñun ñett gaw ma ne danañ xëccoo dara mhm. tey buñ tegoon candidature maire bi ci kaw taabal ñun ñett ñu toog bu duggee même pas cinq minutes ñu ne nañ ko jox diw ñun ñëpp ñu ànd dem liggéey mhm. kon nag ñun amuñu problème kon kon pare nga pour bàyyi maire bi kon déedéet déggoo li ma la wax maire du benn bopp ko yor du benn nitu ko yor. équipe la équipe la. léegi équipe bi su fekkee ñetti leen naa ñëw jóg kenn ku ne bëgg a kondir gaal gi. Mhm. il faut ñu jox ko kenn ñetti leen naa yi bu ñu toogee waxtaan. Mhm. kii ne andi naa projet bi kii ne andi naa bi ñu xool bu ci gën a rafetir dëkk bi. Mhm. ñu waxtaan naa bu mbay sàmm moo gën. ñëpp jox ko mbay rek mbay jiitu. gëwoon ne. te mbay lii topp ci moom te mbay moom loolu la gis. non mbay moom li wér tóor mooy leen nag xam naa ne population bi a am maa leen ko gënal parce que maa leen gën a jege. maa leen miin maa leen ëpp te maa leen gën a oyof xol gën leen laa kon ñëpp ànd ak man. mbay foofu fiefu xalifa Sall la de. waaw daa moo tax muy sama seef nag xam nga xalifa dafa ma njëkk ci politique. Mhm. ah dafa dikk mu nekk man nag ma jógee ci àll ba dikk di deewoo di deewoo beeg si fi ma egg si da lay wóor ne fi ma egg ah defe naa ne ko amulu fi doo fekk si de fi ma jaar sori na trop doo egg si fii. jàmmaarloo xalifa Sall yombul de. kooku du sama problème. non nekk ko si bërëb naan da nga koy dijjate est-ce que yomb na <laughs> Khalifa Sall doomu aadama la yàlla moo ko bind doomu adama la yàlla moo ko bind damay dagaan suñu borom rek yàlla mooy kii maye mhm. su ma tàllee sama borom suñu borom sama loxo su ma yàlla jëlee damay happy mhm. waa Grand Yoff happy ñëpp kontaan mhm. kon donc amul ci benn problème yaa ngi tegal ah, yaa ngi waajal projet bu am solo waa Grand déggoo li ma la wax mooy lenn man fi tul ni réew mi ci programme politique aw ma ci sax lu may briefing door a muy guddi muy bëccëg heure boo ma songee loo ma laaj pare naa pour tontu parce que day leçon boo xam ne maa ngi si jàng guddi ak bëccëg dama ko mokkal. Mhm. muy ci économique muy ci lu ñu réglé sécurité muy ci jafe-jafe yi muy li nekk ci dëkk bi loo ma ci laaj jarul sax nga may laaj jàkkaarloo rek ne mbay nangam boo ma fekkee may nelaw sax soo ma fekkee mbay lii laa bëgg man la nii lay deme mhm. kon kay développé Grand Yoff lu yomb la ci yow. ah dégg li ma la man sama expérience daf ma doy sama connaissance ak reconnaissance bi ma am ci àll bi am ko ci réew mi daf ma doy. Mhm. jamono yi nga xamante ni bëgg naa taxaw fi benn projet boo xam ne deux milliards ak quelque boobu Sénégal milliards xewu fi boobu ay millions dong lañ doon wax loolu loo si jublu woon bëgg liggéeyee réew mi rek gouvernement bu melul na mu bëgg moo tax projet bu taxawut mais projet boobu rek départ bi donc ay six cent et quelques personnes loon jël anamu ah léegi bi nga xamee boobu gouvernement bu ma tombeel moo tombewut léegi nag bi nga xamante ne moo tax ma ñëw ñi sax dugg ci politique pour bëgg a bokk ci ñuy defar réew mi. est-ce que yow frustration taxul nga dugg ci politique. déedéet ndax man li am solo mooy lenn. amul lenn dama toog ba mu yàgg ma xool projet yi may am ak itam partenaires yi ma am extérieur projet bu mu indi rek ma am la ko bloqué ma ne nag force ma bokk ci réew mi man sama ambition bi ma njëkkoon a jël. Mhm. xëy na dañuy parti bi door jël li nga xam ne mooy àndoon na ñun bëri mais man assemblée laa waroon a jël di défendre nag projet yi nga. xam waaw ah, mais pas place Moustapha Niass mais mën naa fa am place boo xam ne ñëpp danañ xam ne Mbaye Samb mi ngi mi ngi liggéey réew mi. te nag man damay liggéey soo demee conseil économique social laaj leen kan mooy Mbaye Samb. te nag bul fàtte ne doo mu soxna bi jóge ca daara ja bu nekkee dikkee ñu dugal conseil économique social c'est le numéro un nekk mu numéro trois nekk mu numéro dix kon nag. fañ ma teg am na lu tax ñu teg ma fa. APR gi nga bokk membre fondateur nga fa temps yi mi ngay mi ngay boy bu ñu ne xal la xal baa ngay boy wax ju ñaaw jekk. li ñu leen saaga saaga yeeg ñëpp a ngi koy dégg fii moom xam naa ne ñu bari. dégg nañ ko man dégguma APR di saaga. <laughs> ay nit ñu xuloo la di saagaante ko ñoom la concerné man li ma concerné mooy APR. yow lu si lu siy sa xalaat. lii sama xalaat mooy man discipline laa am dama am nag discipline de parti. <laughs> parti bi laay xool ànd ñoom di liggéey. benn vision la mooy bi président am. président tey tey su bàyyi woon politique tey ma génn ci politique ndax gisuma ci leader yi kenn ku ma doy ku ma jaar topp président laa ànd di liggéey tey bis bu bàyyee ma bàyyi ndax xool naa ko ci yaram ci tegginam mosuma dégg ci moom lu ñaaw. te mosuma gis ci moom lenn te kàddu gu mu wax ak yow ren. bu nga dajee ëllëg mu la mbay sàmb la ma la waxoon. nanga ma nga naan nit ku respecté parole am di liggéey liggéeyam man dama ànd ak moom pour ñu liggéey ñu bokk gis-gis. Mhm. bis bu ñu Sénégal yi weddee ma ànd ak moom toog. Mhm. kon wutuma ku may àndal wutuma ku may bàyyi mhm. ñàkkut nag parti boo si nekkee da nga amee xarit mhm. da nga am ñoo xamante ndax doomu aadama fu mu mën a nekk doomu aadama mooy mbokkam mhm. kon nag mën nañoo toog di waxtaan te duñ bokk gis-gis ndax am na ay xarit ñoo xam ne AFP lañ ñii PS lañ ñii PDS lañ ñuy ñëw ci man may dem si ñoom mais bokkuñu gis-gis politique gis-gis politique kenn nit laa ko bokkat muy président de la république sama dégg moom aw mu interlocuteur parti bi amul kenn ku ñemee tax ne maa ngi jiitu Mbaye Samb ku ko wax rek dafa wax lu ko neex te it fu mu mas a nekk numéro un laa fay doon bu dootoon ak président man numéro laay doon bi ma njëkkee dugg ci parti bi maa nekk numéro un jiite liste bi dem campagne campagne hmm. dem wuti maire bi bi ma demee conseil économique social man lañ def numéro un kon nag dama ne. nan nit ñi arrêté man bokkuma ci ku may am par parloo ku may àndat wala ku may tàggoor. Mhm. man président laa àndat. Mhm. bokk moom di liggéey. Mhm. saaga yi faaw ñu wax ko. Moustapha Cissé Lo yaa xam mbay yow. tey lan moo si sa position xam nga ma ci position boobu ndax su fekkoon dama ñëw ci parti bi part bi saagaantewul Moustapha Cissé Lo moo saagaanteeg yaa xam mbay ak Farba. demal nga laaj leen loolu man laaj ma ci problème parti bi ak problème mu réew mi loola concerné. ànd nga ci. ànd nga ci lan dàq bi ñu ko dàq. dama ne la dama nekk si parti ànd ak ñoom di liggéey. Mhm. discipline parti bi lépp luñ def. dama ciy ànd ndax tey su fekkee ne ma wàcc yoon dañ may dàq. kon nag li wértóor mooy lenn dama dikk signé accord. Mhm. d' accord ne dugg naa ci parti bii di ànd ak ñoom di liggéey. Mhm. lépp loo xam ne xalaat la ànd naa ci. lu ñu waxtaan ñu waxtaanee ko si biir nekk. tey su ma demee ba wàcc yoon ñoom ñu waxtaan ci biir néeg ba ne mbay saam wàcc noonu dañ koy dàq damay jéem a regretté jubluwaat ci ñi ma seqaloon jéggalu baa leen màq ndax tooñ lu mu rëy rëy jéggaloo ko gën a rëy te boo jéggaloo ñu jéggal la kon nag man li wértoo tey su fekkoon ma am problème dama naan jéggal leen ma suñ ma jéggalee ma dikk toog te fas yéene dootuma ko def mais bu ma laaj ci ñeexuloo kooku moom bokkut sa mbir. <laughs> alors ñu jeexal mi ngi ci cappaandaw émission bi tey ñu ngi dem ci période fête tabaski et ku xam ni tey période bi ñu nekk mbas mi mel na ni lompoñan la ñu bari est-ce que tey conseil bi nga taxee tey li nga xam ni moo di marché bi njëgu xar nan lañ ko mën a tey defee ba mu wàññeeku ku nekk jot si. xam nga li am solo mooy ay jullit lañ. Mhm. yu gëm suñu diine. Mhm. gëm suñu yonent alxuraan wax ñu lu leer naññ. Mhm. tabaski. fi mu commencé ci kaw boo ko mënee. dina métti de. day wulu ma. Mhm. fi mu commencé ci kaw boo ko mënee. Mhm. ñu commencé ca ganaar ba ca nag ba ci gileem. li am solo te am solo mooy lenn kenn ku ne am na wërsëgu la yàlla jox su la yàlla joxee wërsëgu ñetti junni demal jënd xaru ñetti junni moom la la yàlla jox nga rey bul dugg ci loomul ndax jàngoo ji mbas mi ni mu mel amul benn réew buñ ko waxee wax dëgg yàlla man d'accord mu ci jël benn risque ne nañ ubbi frontière fenn fu ne ni lay xar ñëw day yokk mbas mi su ko defee population bi génn dugg ci dara li indi li problème te wér gi nag ak loo mën a xam comme que dañoo mën a tëj jàkka yi mën a tëj jumaa yi tëj place yëpp ngir bëgg a mucc mhm. damaa defe ne duñ provoqué loo xam ne dañuy indi problème ëllëg mhm. damay ñaan daal fi mu nii dara yaa ngi am ay benn ay ñaar borom kër benn bu ne xam nga li sa doole man génnal ndànk dem jënd sam xar dikk yow sa kër bu bis baa nga rey ko toog ci sa njaboot mm-hmm. lii laay conseillé waaye naan jaaw xar yi dana seer rek dana nangam déedéet xar yi seerut mm-hmm. nañ dalal sañu xel te def li ñu man mm-hmm. frontière yi dañ koy ubbi le quinze ñu ne jël nañu matuwaay yëpp waaw même matuwaay bu ñu mën a jël xam nga li am solo mooy leen état yi mën nañu jël matuwaay li am solo mooy daame jëlal sa matuwaay bopp sa waa kër dañ la say jabar soxla ak say doom. man de am naa benn trente mille du xaar ñu bi frontière. damay dem jënd xaru trente mille indi mu wóor ma ne xar mi ma naa tabaski ma toog sama kër. bis bu dikkee ñu ñuy rebaloo toog naa sama kër wax sama njaboot toog leen. li may conseillé sénégalais yi na ñëpp toog seen kër. ku am trente mille demal jënd xar ku am vingt mille demal jënd xar xaru cinq cent mille xaru un million boo ko rey tayit bu subaa nga soxla cinq cent daf ne xar mi na mbatam tabaski yéen a jëla soxlaa deret ji hmm. xar mi bu xasee am fukki a fukki weer a ñaar rek mën ngaa tabaski moom kon nag na nit ñi góorlu hmm. te gëm yàlla hmm. te nag maanaam looy def te yàlla tax yàlla tegul kenn lu munul kon nag sénégalais yi maa ngi leen di ñaan ngeen indi diine lislaam ci seen kanam teg ngeen indi gëm yàlla ci seen kanam teg ngeen xam ne yàlla mooy séddale wërsëg te yemalewul kenn ku ne li nga am na nga dem jënd la nga tolloo toog sa biir kër hmm. dañ bàyyi puukare bi hmm. te xam ne ki day ñëw mais day jàll beneen tabaski ñëwaat nañ ñaan ci yàlla bu ne bu tabaski dikkee réew mi am jàmm ñëpp am fierté kenn ku ne am millions yi loolu jeex nawetu jàmm dugg ci réew mi ba ndox mi yóbbaale mbas bi yëpp hmm. kenn ku ne bu déwénee loo bëgg nga mën ko yàlla nañu ko yàlla defal kàddu gu ma gi lan la sant yàlla di sant Serigne Cheikh Awa Balla sa caatu Serigne di sama xarit di sama wóllëre di ko yónnee cant nag mu yóbbul ma ko ci Serigne Mountakha xalifa général de Mouride mm-hmm. mu tasaareel ma ko ci Sénégal yëpp mm-hmm. chef religieux yëpp di ñaan jàmm ji muy ñaanal réew mi yàlla na ko yàlla def mm-hmm. maa ngi ñaan képp koo xam ne da nga yor saw ay bëgg koo indi ci suñ gouvernement bi wala nga jëme ko ci président de la république yàlla na yàlla jël ay wa soppi ko aw yu soppi ko ci réew mi président maa ngi koy ñaanal ndam li mu bëgg ci réew mi yàlla na ko yàlla def kat ndax kat bu amee ndam ñaam ndam de ndax li am solo mooy lenn juróom-ñaari at yi ba ci juróom-ñetti at yi mu yoragun réew mi ñëpp xam nañ ne réew mi soppeeku na kon nag na gaañi kenn ku ne xam ko la man yàlla yàlla jàppale jërë ngeen jëf ñu ko gërëm ko bu baax moom Mbaye Samb nekkoon tey sunu gan nekk conseiller bu commune bu Grand Yoff nekk conseil économique social environnemental nekk itam vice président délégué yu nekk fële nga xam ne moo di ca commune bu Grand Yoff ñu amoon mbégte lool dalal ko ci émission gox bi mbokk yi di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité incha allah.